Gotta come back. waaw policiers yi ñoo nekk na le waa kër Khalifa Sall la ñoo doon def seen caravane gars yi tiré nañ lacrymogène yi. mi ngi gaay armé wu nañ gaay tiré wan nañ ci biir gaay yaa ngi tiré ñu ngi gaay ñu ngi Khalifa yaa ngi tiire waa kër Khalifa gaa yaa ngi ñëw topp ful bi ñu ngi ñëw gendarme yi ñu ngi ñëw topp ful bi gendarme yaa ngi ñëw topp ful bi noonu.